Thiès 24. ñaari waajur man la Ibrahima Mbodj artiste comédien Lamarana acteur comédien. xam nga raar bi des fois aussi day dem ba benn instant nit ki di dem dangay laaj nga reculer nga toogaat saytu xoolaat en attendant la nouvelle génération est venue sur le plan comédie ñoo xew kenn mun ci dara yàllaa ko dogal man avant boobu dama jël recul. Euh, toog pour xoolaat suma bopp xoolaat li may liggéey naka laa ko mën a ameliore ak la nouvelle technologie avec la nouvelle génération techniciens qui sont professionnels qui sont là nga jéem a yow it yokkaat sa xam-xam pour àgg ci benn niveau bi ak ñoom euh, loolu dong nga tax ma toogaat ba pare benn instant liggéey bi dafa bari coow bari wax coow li bari. boo nekkee ci biir da ngay dem ba da ngay bokk ak ñoom situation boobu te comme ñun aussi dañoo yar yar ñu ci kër yar ñu ci métier bi am na loo xam ne sañuñu koo def donc te ci parmi la la nouvelle génération am na su ñoo xam ne ils sont te bu fekkee da nga dugg nag di nekk ak ñoom rek. soo moytu ñu dugal ci vulgarité boobu te xamee wuñ ma ko loolu yokk tax ma reculer mais maa ngi ci ay projet am na yoo xam ne ay nit ko moom maa ngi ciy liggéey ak ñoom xëy na bientôt incha allah di ngeen ngeen gisaat sama retour ci yu ndaw ndaw rek quoi. vulgarité boobu ngay wax dafa mel ni da nga da baaraam ci li nga xamante ni bi nii noonu la théâtre bi di doxee ak série yi nga xamante ni bi nii mi ngi am à l'occurrence infidèle et yow ban jàngat jàngat jàngat bi ma ci am mooy dafa am loo xam ne moomuñu ko du suñu cosaan mag ñi yaruñu ñu ci ndax Sénégal dañu nekk dëkk boo xam ne dañoo am lu ñu moomal suñu bopp région bu nekk nag xeet bu nekk am nga loo moomal sa bopp muy sa cosaan am nga loo moomal sa bopp muy yar ak teggin bu ñu demee nag balaa nouvelle génération ñëw ne li fi nekkoon dañ koy balaye loolu du du téléfilm loolu du théâtre dem di jëggaani di xool ci ñoo xam ne bokkuñu cosaan ak aada bokkuñu éthique ak morale di ko transférer di ko dugal ci télévision bi loolu dafay ëpp bëgg jëli cinéma dugal ko ci télévision mënul nekk cinéma ak la télévision c'est diamétralement opposé bokkuñu règle bokkuñu démarche bokkuñu doxalin série télévisuelle télé dafa dugg ci kër yi génération ñëpp koy seetaan sëriñ bi da koy seetaan toog di seetaan téléfilm wala théâtre bu ñuy teg daf cee war a xool lu rafet dégg ci lu rafet moom ak askan bi yëpp ak njaboot gi toog di seetaan mais nag bu fekkee dañu dem nag ba jël vulgarité dugal ko ci télévision bi man na xamatuma ci dara dëgg nax yàlla loolu du du ñun daare ko daaw ko def jamonoy tey daaw ko def jànqeen bu Cees daaw ñu ko def mu suñu ko def ndar yaa na ko yàlla yërëm ñoom Aline Golbert Diagne daaw ñu ko def da nga daan seetaan théâtre yi am ci jàngat booy jàngal sa njaboot da daan toog di seetaan théâtre teg sa jabar teg say doom ñu ciy jàng waaye léegi nag ñeme ko donc loolu moo fi ne mais nag bientôt day dañ. am am naa ci yaakaar parce que aussi nit ñi aussi vulgarité bi loo ci gis nit ñaa ngi koy kaas les commentaires à l'internet tu as vu même la la jeunesse son contre. certes elles mais gis nañ ci ay nouvelle génération bi dem ba mel ni affaire affaire maanaam kii boobu euh, sexy boobu da leen neex ba daf ciy am ñoo xamante ni sax bon ci milieu théâtre lañu bokk parce que ñu ngi ci série yi dañuy dem ba da leen di ñu def naka su noonu. xam nga génne xam nga succès du ñëpp ko mën a téye succès. du ñëpp ko mën a téye ëmb dal gëm yàlla a ah, ah man kañ laa gëj a génn est ce que da ma gis ci internet may def nag su dul noonu parce que ba may def théâtre populaire dañ ma yar am luñ ma jàngal ba mu ñëwee daare Kocc ñu gën maa éduqué su ma génnul sax même succès bi sax yóbbuwuma fenn dama am humilité téye ko dal ñoom bu ñu génnee ci série bu premier saison bi jeexee ñu fàtte leen parce que liggéey ba ñorul looloo tax ñu nekk ci internet bi di def yu kenn xamul pour nit ñi di leen fàttaliku ñun nag kenn duñu fàtt ñun duñu def dara pour nit ñi fàttali nit ñaa ngi wër suñuy pièces macha allah kon liggéey bee ñorul liggéey ba ñu war a liggéey dëgg teg ko ci yoon teg ko ci temps ñorul parce que ku ci génn ku ci sa sa sa sa série jeex. ñu fàttale tuuti nga commencé def ay photo ci internet bi yu vulgaire pour nit ñi di la bàyyi xel kon liggéey baa baaxul moo ñorul kon war nañu seetaat seen bopp ñoom bu dee góor nga ëllëg dangay am jabar am ay doom bu dee jigéen nga ëllëg dangay ngay am jëkkër da ngay sëy war a am ay doom nañ ci bàyyi xel. waaw. <laughs> bientôt dina ñëw incha allah waaw namm nañ ko waaw parce que mooy li rek waaye namul neexul. mën na ñëwaat yàlla rek a xama ah. parce que maa ngi jëm mag âge baa ngi dem les cordes vocales day sonn donc euh, bu bees boobu je ne pas mu ñëwaat. mais ton bi dana fi nekk quand mais doole bi ma amoon pour loolu day gën a wàññeeku parce que dañu loo gën a jëm mag sa doole di wàcc donc les cordes vocales reposé naa ko nag noppal naa ko parce que des années tourné wu ma dara donc euh, maa ngi am yaakaar ne ton bi dina fi nekkaat ba léegi waaw eh, ak danda dama ne lii nga xam ne bii monsieur Boy def na ko nii ko dadda diso ana suma ma ni matakka ni am ta mota manila gis nga dama leen di jox rendez-vous naa fii ak ay atti kanam ci ginnaaw léegi la bu soobee yàlla la war a dellu si la ak dellu patron du fute jabaru patron du fute falaa ko yemale